yetta ngi nii yoo xam ne daañu wane ne jëmm jiire yi ci ñu baax la bokkute fab na ci ñoom fab na ci ñoom lu baax loolee bu fabul lépp it fab na ca bu jëkk bi mooy matale àqi jaambur yi kum séqal ku ne matale la nga séq ak moom ñaareel ba sant xéewal xéewal gu mu am sant yàlla sant it nit ñi nga xam ne ci ñoom la yàlla jaarale xéewal gi ba mu agsi ci moom ak ñàkk bëgg lekk ba ëpp ñàkk foqale mooy ñetteel bi ku bokk ci ñu baax te ca mbaax ga daal boo ko seetloo dana doon kuy matale àqi jaambur yi di kuy sant xéewal di ku gaaw a doylu ci ñam du fuqle bañ koy xàmmee ci ak bëgg lekk gu ëpp